الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى القائل في ذكره العظيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرة فإن الله يعلم وصلى وسلم المولى تعالى على سيدنا ومولانا محمد هدي الكائنات وفلاحها وبهجة النفوس وانشراحها وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وعن مشايخنا أجمعين وعن أولياء الله في السالفين والخالفين فهمة الشيخ وحضوري لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا ظفره wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki faydul jaar yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaarawaat di wax ni ñëwaat nañ ci suñu dars ci troisième numéro troisième dars incha allah ci téere bi albayaanu wa tabyin an tijaaniyati wa gis nañ sayd rayaaxi radiallahu anhu jàngale bi muy jàngale la mooy tariqa tijaniya gis nañ kiraag ba tey ci nas bi ni ko Mawlana Cheikh Islam indee ci téere bi ba tey ñu ngi ci nas bi kiraag gi jàngal na la nan ngay defee maanaam daw suba mooy laazim suba ci istighfar ci dégg nga salaatul fatixi lima uxliqa ci laa ilaha illa allah nekk limba gis nañ ko mu ne la nag ni nga koy defee ci suba wa taqulu misla dalika baada salaati al asri naka noonu noonu nga koy defee itam ginnaaw boo boo jullee tàkkusaan mu nekk ñaari wird bu suba beeg bu ngoon bi tàkkusaan gi ni nga def ci suba gi noonu nga koy defee wa dalika qawlu taala mu ne loolu nag mooy toola wax yàlla ji mu wax subhanahu wa taala ne bil gudwi wal asal wala takun min al ghafilin laaye jooju yàlla wax ci alquran laaye mu suratu araf yàlla wax ne wadkur rabbaka في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو دنجا والآصال ولا تكن من الغافلين لولكن سب سيدنا الشيخ رضي الله عنه إني ويردو قمن دنجي دم استغفار أكثر عطفاتي لا إله إلا جسو بدفات كشنغون waye ba tay lañ waxoon kërëg rek ba léegi mu ngi ويلي ما ذكر وظيفة تقولها في الأربع وعشرين ساعة مرة واحدة أي ساعة تيسرت وهي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثين مرة والصلاة المذكورة خمسين مرة ولا إله إلا الله مئة مرة و جوهرة وجوهرة الكمال اثنتي عشرة مرة وهي اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأستعي بمزون الأرباح مالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المتلصم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه كن لي موي درس تايبي دغ وظيفه itam di leeral lan mooy wasifa nan lañ koy defee yoree buñ ci paree ñu daal di wax yenn maanaa yi nga xam ne jawharatu kamal làmboon na ko incha allah kon lii mooy li nga xam ne mooy wasifatu comme niñ ko jànge mu ne la nag mu ne lim toftal ci ginnaaw laazim suba ak ngoon mu ne wa yalihima ma dakkara wasifatu la ci topp nag mooy wasifa leeral na wasifa ne wasifa taquluha fi arbaa ishirina saa maratan waxida bis bi mooy vingt quatre heures yi da ko ci jàng moom wasifa yow tijaan bi benn yoon benn yoon nga koy jàng loolu nag ay saatin te yasarat heure bu bu manee moo tax nga gis léeg-léeg ñii di wasifa ngoon léeg nga gis ko wasifa suba ku ci nekk rek taifa bu ci nekk utal ko fixé ko ci heure boo xam ne dana yombal mbokk yi ñu dajee ca ndaxte sartam mbooloo charte la ci wasifa daal di ko wutal ay heure ngir man ca dajee lool moo waral heure waaye daal charte bi mooy nanga fexe def ko ci bis bi heure boo ko mën a def rek su boobaa réew na wasifa woowu nag la wax ne da ngay jàng istigfaar nee naa la salaatu ala nabi bari na lool saxaaba yi sax ku ci nekk amoon na xeeti salaatu bu naan julli ci yonent bi nu mu ko gën a sentiree nga xam ne bu ko waxee xolam ci lay gën a neexee ci lay gën a yaakaar yërmande yàlla rek mu nga ci naka noonu itam istixfaar noonu la jéggulu yàlla ku ne ak siixa bi ñu koy defee doy la ci rek nga ne làkk bu ne rek ñu ngi koy ñu ngi jéggulu yàlla ca kem nañ ko mënee siixa ñu ko mënee rek nay jéggulu yàlla salaatu istixfaar bii nag nga xam ne moo ñoom ci tariqa moom benn la ci istixfaare waaye nag mu nekk istixfaar bu am jagoo ndaxte istixfaar la bu ànd ak ndigal wa astaghfirullah azim alladi la ilaha illa maa ngi jéggalu yàlla mu màgg mi nga xam ne moom rek mooy buur moom rek mooy kii dund te des waaye moom rek moo pare moom rek la mbiram mat dégg nga am ay mbóot yu doy waar yu ci nekk yoo xam ne xaas yi ñu ngi ko denc dégg nga mu nekk mbuuti tijaaniya yoo xam ne lépp ngi ci lépp ngi ci tariqa bi kon wasifa loolu ngay njëkk def mooy istighfar mu ne la gind istighfar bu ñaata nga koy def mu ne la salaasina marra trente fois fanweeri yoon nga koy def ba ca topp mu ne boo paree nga def salaatu mazkura mooy julli yim la wax moom mooy salaatu faatee biñ biñ biñ la tuddoon ca daat su bale weesu te firi ko salaatu faatihi bi nee na soo paree istixfaar moom ngay def ci wasifa moom yaa ngi koy def cinquante fois juróom fukki yoon ginnaaw ga wa laa ilaha illallah nga def la ilaha illallah moom téeméeri yoon mooy mi atamarra cent fois ginnaaw nga def lan jawharatu kamal mooy moom itam ñaan gu gudd gi nekk suñ kanam ci lañ ci lañ buñ paree ci lañ war a suubu jawharatu kamal nga def ko moom itam isnata acharata marra fukki yoon dégg nga ak ñaar lii mooy wasifatu kon mbokk mi soo dégloo lii te seetantal di nga gis ne amu ci lenn loo xam ne nekk na ci wird tijaaniya lu ne rek ñëw na ci alquran ñëw na ci sunna kon yow dangay mujj gëlëm ci ne ki nga xam ne dafa jóg ngir diinga tariqa tijaaniya lan moo tax mu koy diingat wird woo xam ne ah, loo ci ekkati rek man nga yóbbu cëslaay gi léegi ci alquran man nga yóbbu cëslaay gi léegi ci xadis nab xadis nabawiya su nit ñëwee ne lii dafa génn sunna yaakaar naa ne boo ko laajee fan nga ko teg du lay indil benn dalil bu leer ndaxte ginnaaw dalil al bu xam ne ñëw na ci alquran ak sunna ah dalil beneen mënatura ñëw bu folli loolu kon ñi weddi tariqa tijaaniya bari na waaye rawatina awraad yi waaye ci awraar yooyu rawatina lu mel ni jawaratu kamal ñu ne yaayoo yaay dañuy géem a génn ay xelal ay manki manki ci euh, salaatu boobu nga xam ne mooy jawharatul kamal waaye dañuy gis na rek boo demee ba ci biir ñenn ñi danga naan sax dañoo déggu luga arabiya niñ ko war a déggee loolu moo leen trompé rawatina ci baatu askam voilà lu wati na ci baatu asqam baatu asqam bi nga xam ne moom ñëw na ci téere bi ñu bëgg koo firee feebar siraatika taan asqam sa yoon bi da aji tawat bi da aji feebar bëgg koo bëgg koo def mu nekk njuumte euh, maa ngi lay yebal ci ay téere yoo xam ne defaroon nañ ko yàgg na ci di lay layal Seydina Cheikh radiyallahu anhu ginnaaw bu mu layalee boppam moom lépp lu mu fi bàyyi teg na ko ci alquran ak sunna ban ida samiatum anni fazinuhu bi mizaani shar'i fa ma wafaqa fa xuduhu wa ma xalafa fatruku Seydina Cheikh radiyallahu anhu ki nga xam ne mooy Seydi Lubay de Sanqiti bind na téere boo xam ne mu ngi tuddee Maydaanul Fadl Maydaanul Fadli wal Ifdaal dégg nga fi chamiraay xati jawharatul kamal gis nga di leeral jawharatul kamal di ko saraa di gàggante ñi nga xam ne dañuy jéem a jam seydina cheikh ci salaatu boobu naka noonu seydi muhammad ibnul amin sinqiiti moom itam dégg nga seydi muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu kanuun moom itam téere bi nga xam ne mooy xillul afaal li qiraati jawharati kamal moom itam moo ngi leeral jawharatu kamal ni mu nekkee lu wér ci luxaam waaye ni mu nekkee lu wér ci ay maanaam waaye ni mu nekkee lu làmboo ay mbóotu yàlla naka noonu Seyd Muhammad ibnu Amin Sinqiiti ci téereem bu mu wax bu mu tuddee ar raddul muhkam fi sixatil asqam mooy baatu asqam boobu ma wax la ne ñoom dañ caa réet incha allah dina ñëw ci kanam tuuti ngir ngir leeral bu ñuy firi jawharatu kamal ba yegg fa dinañ ko gën a leeral lii nga xam ne moo trompé gaa ñi ci jawharatu kamal su ko defee aji dégg ji incha allah bu ci gàggoon itam yaakaar naa ne dina mën a dina gën a mën a gàggante ko waaye yii nii dañ la ko tuddal rek ngir nga gën ci bàyyi xel cheikh nabahaani sax moom bind na ci téere tuddee ko munkiru kalimatal asqam ala cheikh Tidiane voilà bari na lool voilà mbir nag duma toujours ne soo cay inkaar te xeeñ na jaralul la gëstu man nga yàgg lool ci sa inkaar yooyu mooy salaatu bi nga xam ne moom mujj ci wazifa waaye mu nekk ñaan gu foor wala julli gu foor ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg nag nga dégg ku defe audio ne dafay inkaar bokk na ci salaatu foor gi di jéema wane ay naqaais yoo xam ne feeñ na ci waaye lu ci ne nag boroom xam-xam yi leeral nañ ko ba ñi am gëstu yoo xam nañ ne munkiru ne ñu am problème ñii dañoo yàkkamte weddi te yegguñ ci niveau mën a weddi rawatina lu mel ni luxa arabia bu fekkee déggoo ko dangay lottu lool ci jéema ayibal lii di jawharatu kamal كملني سيد لبيد سنقيتي دفنك أي ليرة تلومين عين رحمة ربانيتي دينغ عين الحقي ترات الحق بالحقي لتنك مو عندك أي كلك معاني دونت معاني أم يا دوم آدم اللوت نتي من كو جيخل نختي كيكو جانغ أكيم كوي جانغل سين دايو شيالا يالا رغم وخم kon jawharatu kamal bi mu commencé mooy allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati la ñuy wax amru bi du'a comme ni nga ko gisee ci alquran façon amru yi bëri ci nekk amru bu nekk ak maanaa ba mu am moo tax arab du def amru rek ndigal rek nga ne ndigal gi mooy defal daf ci am ci ndigal loo xam ne mu ndigal ak ñaan la yàlla jullil salli wa sallim jullil te sëlmal ala ayni rahmati rabbaniyati ci jëmmi yërmande yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmmi yërmande yàlla gi nga xam ne moom rek moo moo tukkee ci ko jóg moom rek moo ay na rahmatu rabbaniya comme ni ko euh, Lubaydi Sayd Lubaydi waxee mu ne buñ ne ay na mu ne tushiru ila xadarati alxadara alkabira wa hiya xadaratu mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daf lay junju حضرة الرسول تم حقيقة المحمدية ميغا خمني تلا يالا عمل دنگ لم حمل واتي تي لم واتي فينال تي لم فينال يالو يالا يالا نغا جولي تي يوننتو صلى الله عليه وسلم نختي كات لا واخني وما ارسلناك الا رحمه للعالمين wa arsalnaaka kon ñi bind ci tariqa ci ci jawharatu kamal ku ci mel nii comme ni ko Sayyid Lubayt seen xeet yi leeralee bind ci téere di leeral jawharatu kamal mu ñi nga xam ne ñoom doo wax sax ne mun kiru nañ waaye way réer lañ yoo xam ne ñu ngay réeral ñeneen ñu dul ñoom ci ñàkk xam ñu daal di bind téere ku ci mel ni Seydi Muhammad ibnu Muhammad ibnu Abdusalaam Kanun téeréem bii di xillul afaali li qiraati jawharati kamal naka noonu seydi muhammad ibnul amin sinqiiti bind na ci tuddee ko raddul raddul muhkam fi sixatil asqam dégg nga la boo xam ne dañuy day day delloo tuuma ci ku bind jàngale jéem a xam jéem a gëmle gëmal nit ñi ne dégg nga jawharatu kamal wérut ndaxte baatu asqam bi firi feebar siraatika taamil asqam boobu ñu ne loolu euh, du wér gis naa sax ku ci def audio boo duggoon YouTube bi sax mën nga koo gis mu ne ndeysaan loolu njuum jël la sax ci salaatu bi pour ñu wane ne salaatu bi wérul waaye loolu ñàkk xam kese gu ci am la ndaxte euh, luga arabiya su fekkee làkku arab su fekkee ne yàlla mayul la ci tamkin nga bëgg caa wax rek nga daanu daanu bu métti métti loolu xëy na moo leen